du yàgg ba xeex bi jeex ñu jeexal ko te ndara bu di ndara bu di li ñu amee dañu koy fay ba jeex ñii ñoo ko nara réclamé ji ëllëg te duñu noppi duñu sonn duñu tayyi bu ñuy raam bu ñuy teg ay bureet xale yii ànd ak ñun di dox ñun tey ils sont prêts pour que demain ñu teg ñu ay bureet pour réclamer le tout argent. man maa kii ñu ngi taxaw ak Moussa Arona Diop ancien conducteur la woon nekkoon Sotran. bu yàgg ba léegi waaw Arouna yow leen seen marche bi moo ko indi tey. waaw marche bi daal moom dëggal suñu bopp moo ko indi ndax ñun bi fi Ablaye Wade jëlee réew mi dafa fekk ñu am problème mu dégg suñu yuux ñu ne euh, woonu ne leen lan la ñu ne ko suñu baay moo dee mënuñoo jot suñu wàll ci miraas bi mu ne dama leen di yóbbu arbitrage bu ngeen fa amee dara ma fay leen ko bu ngeen ko amul duma leen fay donc léegi dem nañu arbitrage affaire bi nekkoon na vingt et quelques milliards ñu négocié ko ba ci quatorze milliards mu dugal ci cinq milliards ni su ma faluwaatee dinaa fay yàlla def mu jóge ci bopp réew mi Macky Sall ñëw nuy fecc ni dinañu jox suñu reliquat boobu ba léegi jotuñu dara moom dernier mitinam bi nekkoon stade Guédiawaye moom ci boppam président Macky Sall moo wax ni su ma faluwaatee dinaa régler problème mu Sotrac booba léegi ñoo koy xaar te élection yu ñëw jàpp nañ ci gisuñu dara ba léegi ñoom ngi toog di wowalu garab léegi daal loolu tey moo indi sunu marché bi moo indi sunu wax ji moo indi sunu dox bi. Babacar yow yow ancien Sotrac yow lan moo indi seen kii lan moo tax seen marché bi tey. ah waaw sunu marché bi tey dafa jot lii dafa dafa weesu sax def bu yàgg. état bi depuis 2008 mu ngi war a jox 14 milliards joxoon ñu 5 mu des 9 boobaak léegi ñu ci topp lu daw bu dégg bëccëg lu ne at mu jot ñu dégg ñu at mu jot ñu dégg ñu lépp naax saay moo tax nag fu mu ne nii son nañu moo tax ñu ñëw taxaw ak suñu njaboot yëpp sonn na ñii dee nañu ñii feebar nañu ñii dàq nañ leen école suñu njaw suñu doom yi jàngati dara amatul fu mu ne nii daanaka daanaka ñun ñun fi ñu doon ñoo raw sax ñu Covid 19 jàpp. waaw léegi fekk fekkee ni par ngeen waxuñu leen ah, boobaa ñu waxtaan ak fekk ci leneen lu ñuy def rek parce que itam euh, euh, jéego jéego du jeex euh, jéego du jeex bu ko ñu xool leneen lu ñuy def ñu jëm ci leneen te yaakaar nañu lii bu buñ ko gisee bu ko buñ gisee dina war a mën a réagir quand même parce que itam ñun ah, ah, ay ay ay Sénégalais lañu ay mag yi jëm lañu yàquñu ñu dara vraiment nous sommes disciplinés di dox di laaj suñu alal war nañu mën a wuyu buñ ñu wuyuwul nag maintenant. loolu la dañoo ànd ak suñuy sët pour wan leen ne du yàgg ba xeex bi jeexal ñu jeexal ko te ndara guddi ndara guddi li ñu amee dañu koy fay ba mu jeex ñii ñoo ko nar a réclamé ji ëllëg te duñu noppi duñu sonn duñu tayyi bu ñuy raam bu ñu te ci ay bureet xale yii ànd ak ñun di dox ak ñun tey ils sont prêts pour que demee ñu teg ñu ci ay bureet pour réclamer le pour internationale. abonné leen YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor ci